join ah fajar join ah oh fajar join ah wéet ndekki fajar dem na ma waroon yeewu fajar fajar nga war a toog ndekki jël sa kilo mburu def ci sa ton laal ci sa soos kaani bu saf-saf. kon weer wi feeñ na. waaw weer wi oustaz saya yu weer di feeñee ci lay saya di ñaanal ñu réeroo am na de oustaz yaa ci ci fan réeroo bi mal ta mal entendu am na de ci lan yëgoon yi dañoo capturé weer pare nga laaw waaw pare naa boo ko xoolul woon est ce que di nga ko gis loolu sa tontu la ak man lu ma saf laay sol ah na ku ne di jënd sa problème koor gi teguma ko kenn yàlla leen ko teg ah xamal ni kon yow amoo benn amoo benn éclairage de sa say dàll yu teg def sa xef yi mag di wër ci mbedd bi tambaambalu kii ni la lii doomu diine du ko def dafa war a am set de lii la lii lii ay ay ay nijaay eh, ma doon naqar ila gisuma ko de moom de laa ko aaloon. sama Habib moo doon moo doon lii. moo war doon lii léegi la ma ko aal. kon Habib mi ngi gën la ku sëñ bi rek Habib. kasaalika kasaalika muy nit ku sell. kasaalika doomu aadama boo xam boo ko musaan a gi jëm ci moom doo xam ne kasaalika ay cëram kenn mosu koo gis. sëñ bi xam dana sol jàllabe yu jot. sëñ bi daan même moom ñamal ko ci kasaalika ni mu mel di kasaalika taxaw xam nga kasaalika di nekk koo xam ne sol jàllaabeem te daan julli waxtu julli juróom may ma foofa tuuti jigéen ju sell ju taaru may ma foofa tuuti xam nga boo xamal ko kasaalika boo déggee ñu naa jàng baax na jàng day lu am solo dëgg la te sëñ Tuubaa bi mu dikkee ca ndaw ñu la njëkk a waxal ngir ñu jàngi yaa ayyuha sibyaanu laa tastaxilu dëgg la anil hudaa wa bil xuloomi staxilu fastaxilu bil xifsi wa tilaawa wajtanibu majalisa shaqaawa kasaalika du nit ah waaw du nit